ok mais temps yi ñu ngi jégg benn euh, actualité bi nga mu ngi daw temps yi xam ne dafa jaaxal sénégalais yi tout ça ba tey leeral ko gars yi tey fii si euh, seen activité yi parce que ñëpp ne nañ parce que kii di doomu Sénégal bi mooy jour Sénégal bi nga xam ne mooy Krépin Diatta actuellement nii moom boobu mooy def buzz bi nga xamante ne tey yaa Krépin Diatta lan moo nekk seen diggante. ah dinaa ci sawar a wax. non si di si xuus. non nañ bàyyi mu sedd. non foofu nañ fa parce que xam ah, ñun duñ jël télé si équipe nationale yow euh, xam nga Krépin Diatta loo gis si Krépin Diatta avant tout. <laughs> lu Sénégalais yi war a mën a gis ci moom laa gis ci moom. lan nga Sénégal Sénégal yëpp ne Krépin Diatta dafa ñaaw. <laughs> man ñaawul ci man na xol bee rafet. Ah, ñaawul ci xol bee rafet. <laughs> wax ko ñi ñu lay dégg. Krépin Diatta ñaawul xol bee rafet. Mhm, te góor du ñaaw. te góor du ñaaw. <laughs> Euh, lu tax nga ne góor du ñaaw comme ça nga ne góor du ñaaw. parce que góor moom rafet. Mhm. Mhm. moom mu rafet kon boog Sénégal li ñu wax Sénégal si Krépin non amul amul amul amul amul musta am. loo sekk moom kon. jàmm jàmm ju ma ñëpp laa. sekk Krépin Diatta comme nan. <laughs> la Pédiatre sama xarit la. Mhm. nit ku baax la aussi. sa xarit la nit ku baax la. Mhm. foofu kese. Mhm. non du loolu wax ma leneen quoi. ah waaw mais loolu la je te jure la ku baax la sama xarit la. da nga amoon ak moom relation. waaw am naa ak moom relation mais pas relation amour ah. moom relation amour daal. ban relation ngeen ban relation ngeen am relation l'amitié. waaw amitié bu bu bu dëgër lañ am amitié bu dëgër. mu hmm. nekk koo xamante ni sama famille ñëpp xam nañ ko d'ailleurs. Hmm. voilà mu nekk benn jeune boo xamante ne sama famille ñëpp ko apprécier. mais ñun ñu dégg yaa CREPES jar nañu da ngeen génn. waaw waa Dakar ñoo ko wax waa Dakar Dakar 92 ans. ah Dakar 92 oui damaa xëy rek damaa xëy rek gis sama bopp ñu ne ma voilà. Hmm. dugal sama trois photos xaw ma sax fi ñu ko jëlee d'ailleurs. ok. ñu ne yaa Krépin Diatta da ngeen ni nobante affaire yooyu noonu mais après juge ba ba nga loolu après nu la def. non dama ko envoyé dama ko envoyé Crépin. Mhm. Crépin Diatta gis ko. Mhm. ma ko Crépin je t'ai déjà envoyé cette photo là. Mhm. mu ne ma oui cette photo là je l'ai déjà. xam nga. ok après moom waxu ci def ko ci moom daal instant bi loolu yitteelu ko yitteelu ko franchement parler. mais est ce que nekkul tamit ñun dañoo war a constater aussi Coupe d'Afrique si affaire yi. moo doon ñu eh! fi naan dañuy jéem a nekk si ginnaaw di doxal ay booy jigéen. <laughs> moom mooy seen saar gi rek la booy de. <laughs> xam nga c'est ça yéen tax euh, booy mu ñëw feebar parce que yow tey yaa Krépin Diatta ba léegi liggéey sëg na nga ko wax sénégalais nee nga ay xarit ngeen à part ça xam euh, avant nga def émission bi dala woo téléphone ni la bu la gars yi laajee waxal lii waxal léegi léegi. non pour dire vrai. yëgul ni sax maa ngi def émission franchement parler waxuma ko. dëgg mm. mais est-ce que yëngu ne mu am na jabar. Krépin am na jabar. oui. ah ouais yëguma ko. lu koy am na jabar <laughs> ah, non. <laughs> jabar Krépin amul jabar amul ah. jabar te loolu j'en suis certaine parce que maa ngi moom waxtaan nañ ci. Ah. ah mais koo xamante ne si relation lu muy tax a dem expliqué naan la am naa jabar amul jabar. parce que dañoo am relation bu privé attends quand je dis relation bu privée ça veut pas dire que maag moom dañuy génn. Mm. génnuñu c' est juste dañu am relation privée. loo xamante ni voilà ni ni nit ak nit war koo mën a am. Mm. jeex na. kon daal yi ñaar relation privée ngeen am boo xamante ni yi ñaar kese daal seen ruq daal ngeen koy toggatu. amuñu benn ruq bu ñu war a mën a toog pour pour loolu. astafurlah <laughs> dig ma rey. mais euh, est ce que nekkul yow yaay wër gaa yi tamit. wër ma kenn comme ni ñu ko waxee suñu début waxtaan. Mhm. du man may xëccin doomu aadama yi di ñëw ci man. Mhm. parce amaana tey Krépin moo siiw rek. Mhm. nit ñi jël étiquette boobu takk takkal ma ko mais maa Krépin. du yéen ñaar daal. non wax ma du maag moom. Ah, ah mais parce que góor la góor la. non ah, nee nga yaa Krépin nee nga yéen ñaar. non waxal li ma wax. waxal li ma wax sëñ bi waxal li ma wax dama ni Krépin Diatta. góor la. surtout wax ma la du ma ak moom. ah waaw mais Kébé moom bu pour checker relation na tey. ah duñ def lu dul nangu. ku baax la. mais yow yow yow yow yow yow Issa yi yi fi ñu génn ñu bale ko si saal wi gaa. non nëbbu ma la leen. ah nëbbu ma leen parce que li nga wax ni nga ay bu ñëwee ñu nangu ñu waxtaanee ko léegi léegi léegi yow senegal yëpp dañoo d'accord Krépin moo gën a ñaw waa mais ku ñëpp ku ñëpp bañ. ku ñëpp bañ. man ko man ku ñëpp bañ. dayoo ko dara mais tamit ku ñëpp bëgg. man kookoo kookoo jara bëgg. mais sa sa Facebook euh, dañuy gis dafa bëri ay photo Krépin Diatta xam ba sa Instagram ay photo yi nga ànd ay affaire yow bul comprendre daal tout ça xam nga yaa ngi yëngu am man man photo Krépin Diatta man moom waaw daal Facebook bi tout ak euh, ci Instagram bi yaa Krépin Diatta xam bul comprendre daal. waaw Krépin xam nga lu tax ma gën a def sama photo ak moom. Mhm. photo ko def ko photo collage. comme ñëpp nu ñuy photo def photo collage montage. Mhm. parce que dafa am bët buñ koy xoolee. te bët boobu neexuma. waaw ah ban bët lañ koy xoolee. bët ay comme lu fi jot a xew. du ma ci du ma ci jaaraat. lu mel nan ay Krépin ah, lan la ñoo ñëw attaché parce que chaîne acte lañ nekk fii dara du fi nëbëtu euh, comme lan moo fi jot a xew ci ginnaaw après avant loolu lan la. en fait euh, dara dara sénégalais dañoo jël di ko moquer tu vois. loolu moom ma loolu moo ma gën a poussé ma jël photo. ay dafa ñaaw. ay dafa ñaaw moo tax ma yi moo tax ma jël benn photo ak sama photo collage ko ne. Mhm. ki ko bañ na ma bàyyeek yow. Mhm. na ma bàyyeek moom ku ko bañ na ma bàyyeeg moom. def photo bi ci suuf def crépin my only. oui tu léegi site boobu moo ko jël tasaare ko ci dëkk bi. ok mais yow crépin euh, Sénégal yi da nga ko nopp daal si xol daal léegi nga xam daal. Oh, parce que nee nga góor ñaawul sànq say wax parce que góor du ñaaw loolu expliqué sànq. mais yow gis nga góor bu ñaaw. ah man loolu wóoruma yow bëri gis nga gis na góor gu ñaaw. ah Modou ah, ah gis nga góor gu ñaaw. gisoo ah, ah góor dafa. góor ñaaw gis nga nee na góor du ñaaw boo gos la. <laughs> Modou daal nee na ci ba bi parce que ba léegi na nga faa leeral dara amul da ngay maas nun bi sànq ba léegi <laughs> nun bi daa bëgg nga maas tel moom mu saf sap xam nga bëgg ma nga raayaale parce que dafa am ñu lay suivre seen acte nga nekk actuellement yaa ngi a ngi lay suivre a ngi lay suivre yaa ngi ñu ñëw nga ñu xool nga njàmbaas ko ba mu saf <laughs> da ngay raay jàll sànq say biir wax maa lay dégg nga ne bu ñëwoon ñaan si ma ma nangu yow nit ni koo xamante si si ko moom dama ñëw ñaan si nga nangu da xam kuy karafe. waaw Abou da am loo wax nag. Mhm. nee nga ma carrément bu woon ñaan si est-ce que di nga nangu. waaw juste dama bëgg a xamal bépp jigéen bu taxaw tey pour nopp Kérépin dama lay dama lay encouragé nga dem. yow na woo ko. non sama sama sama grand frère. <laughs> Euh, non yow parce que sànq ba léegi nangoo wax wax ji. nee nga nee nga ma déglu ma arrêté nee nga ma Krépin ah, bañu ma ko bu ñëwoon tey mën na ko accepter mhm. yaa ngi comprendre kon déjà que Krépin tey kon bu ñëwoon tey par seen relation yi ñaar di nga accepter wala tey bu ñëwoon pour ñaar si jabar di nga accepter. waaw waaw moo li wax rek Krépin moom. Mhm. ñaawul. te man gisuma ñaawaayam. waaw parce que moom bëgg benn jigéen gis ñaawaayu Krépin. ku ko nopp na dem wax ak moom. voilà mais Krépin est-ce que nobbu la yow. non moom noobu ma ay xarit lañ. non non parce que gis nañ seen message yi ñaar yéen dugal si ay eh, yéen envoyé te yaa ma gën a xam bul comprendre. yan message nga ah, gis yow yaa ngi may tuumaal yow gisoo yow <laughs> non man yow kii mi ngi may tuumaal <laughs> yan message seen message Instagram gisoo ko yow. non yan message Instagram laa fi gis <laughs> waa IG dañuy bind lu leen neex. lu leen neex la ñuy def man bindu ma leen. man li ma posté mooy ku ko bañ na ma bàyyi Krépin Diatta loolu rek laa. kañ nga déggante yow Krépin crépin loolu du ma ci wax dafa nekk dafa nekk dafa nekk di dafa nekk équipe nationale instant yi mi ngi ci compétition waaw mhm. mi ngi ci compétition voilà dama koy ñaanal juste mu foncé wu comme mhm. dab mhm. comme dab daal kon sa yaa koy pikir pikir bi nga xamante ne tey pikiru ma ko dara de yéen eh, uy ma yow bu dugal ngir yàllaa gi loon ci bi baa li def àdduna moo ñuy seetaan nag a euh, ce ah, que xam nga ma crépé daal àdduna ngi nii hmm. mais actuellement yow lan nga yow stage si loolu ne da nga si projet mariage yaa crépé jaata wala actuellement <laughs> da nga am ay projet mariage yow tamit ak yeneen star parce que xam naa ne gars yi ñu ngi lay yi ngay dóor xam nga gars yi ñu ngi lay suivre bu baax <laughs> fekkee ne de wax fi tey lu leer xam naa ne fekkee da am relation ak jaamaan ne nga sax <laughs> dina la bàyyi tey fii Ngaaka Blindé dina la bàyyi tey xam naa choqué na ma la tiital si Ngaaka moo tax nga bàyyi Ngaaka. kenn moo la <laughs> jour concert bi sax laa ko yëg. Mhm. Mhm. mu nekk tamit ku baax ku Ngaaka bëgg ci biir xolam. ok mhm. ñun tamit ñu bëgg ko. yaa Doudou fait des vidéos. yow mën nga maa bàyyi man damay génn émission bi nag. parce que ah, instant bi dafa moom dafa tuuti amoon dafa tuutal Doudou quoi xam nga non Doudou sama benn xale la nga xamante ne nii <laughs> du du yàgg Doudou quoi yow. <laughs> maag Doudou laa jàmm nag man maag Doudou laa jàmm dégg nga lu ma wax nee na du maag Doudou maag Doudou la maag Doudou la. mais Krépin da lay bàyyi de. Krépin fii laa wax de son biir xol te kenn mënu si dara. kenn mënu si dara kon da nga nopp Krépin. ah du ma wax loolu. Ah, Samba yaa ngi tontu sa bopp. <laughs> du ma léegi mu ngi tontu boppam yaa ngi dégg nee na crépin si biir xolam la ko def. non nit mën nga kaa bëgg def ko sa biir xol non saa nga nopp ko. Hmm. Mhm. Doudou foo ko def nag moom. Doudou sama suuf tànk yi ndax parce que moom moom il est trop amerdant <laughs> Doudou il est rigolo il est amerdant sama suuf tànk laa ko def.